train rek maanaam train yu bari la moom Thierno Lo ba tey ci biir journal bi daan nay wax ci violence bi nga xam ne jamono ji moo am ci réew mi ak ci université yi daan nay wax ana nan lañ koy lijjantee ba tey ci lu jëm ci wàllum teer bi yéen kaay gi di Le Quotidien nee na bi maanaam tarif li nga xam ne mooy njëg gi bi ma ngi doxu diggante téeméer ak ñetti téeméer daan nay wax ne fukki minute yu nekk benn train daal di romb lu toll ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay gendarme ñooy yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum sécurité bi yéen gi di la sax xëy ci ñaar ki nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor mi fi njëkk a nekk njiitu Sénégal yéen a kaay gi di Sud Quotidien daal di wax ne Léopold Sédar Senghor président poète ab catholique la woon boo xam ne maanaam neexoo woon na lool ak xalif généraux yi nga xam wax ne Léopold Sédar Senghor nag daana défendre bu baax a baax maanaam kàllaama gii di nasaraana waaye nag mbirum culture ñoroon na ko lool yéen a gi mu ñuy xamal na ñu bu mag la woon yéen a kaay gi di réew mi ko signé ndax a joxar bi baaraamu tuuma ki xam ne moo koy andi ci réew mi yéen kaay gi nee na ci xëlim ak Assane Samb wax ne Ousmane Sonko mi nga xam ne moo ne ab la bëgg gars yi signé ko ngir nag ñu yóbbu Macky Sall ci haute cour de justice Assane Samb ni mu ko gisee dafa gis ne Ousmane Sonko dafa bëgg nag condamné Macky Sall moralement bëgg wan Sénégalais yi ne leen jamono ji kii nga xam ne moo yoru seenum réew maanaam méritatul di ko continuer di ko yor Thierno Lo ba tey ci journal bi loo xam ne jëm na ci wàllum expression yéen a kaay gi la sa ñu koy fekk fa kaani bi maire Boundoula daan nay wax ne Macky sal nii nga xam ne moom la ñu ko gisee muy doxu maanaam pare na ngir sacrifier ay sénégalais yu bare bare ngir toogaat ci bopp réewum Sénégal yéen a kaay gi di réew mi ko di jee xëy dañu xibaar naan ñu Pape Diop bu bokk gis-gis jamono ji nag moom mooy candidat waa secteur informel bi ndax nag ni ki démb méga meeting d'investiture bi nga xam ne Pape Diop doon na ko def ci terrain Fass bi mobilisation record moo am ci secteur informel bi tey ci journal bi di 24 heures Moussa Diakhaté mi nga xam ne mooy porte-parole bokk bokk gis-gis ni ki démb ca ndaje ma daan wax réalisation yi nga xam ne Pape Diop def na ko fii jamono ji nga xam ne moom lay nekk maire bu Ndakaaru daan nay wax ne Ndakaaru jamono ji ñoom ñoo namu Pape Diop ndax jamono ji mi nekk maire bu Ndakaaru def na lu bare bare ci lu jëm ci wàllum électrification def na lu bare ci wàllum santé ak wàllum éducation ak wàllum emploi des jeunes ba ci social daan nay wax ne Pape Diop développeur la travailleur la ku sincère la ku courtois la ku la ku humaniste la yéen a kaay gi di libération xëy di ay yeneen révélation ay mbóot yu a moo am ci saara ci marché gré à bi nga xam ne moom la ñuy wax wax ne toll na ci deux cent milliards ay journal bi daan nay ñëw ci tong-tong boobee nga xam ne la fa xew jéggi na dayoo ak ni partenaires yi di séddoo cargaison yi yéene kaay gi ne na li xew saar daal na leen ko yàlla umpo ndax garaaw na genn xeetu garaaw goo xam ne fu ko waaye nata passé na ko yéene kaay gi di laas ak réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Souleymane Jules Diop nee na nag moom dafa ruus loolu ne tudd nañ ci ñaari député ak di ak ministère bi ñu dénk wàllum affaires jamono ji sax na di wane li nga xam ne mooy passeport diplomatique am daan nay wax nag ci mbiri kilifa nee na nag mbir mi nag nañu ko tolloole maanaam dossier kilifa ak ñi nga xam ne tudd nañ leen ci wàllum passeport diplomatique ak ñaari député yi maanaam mbir mi daal nañu tolloo ca kanamu yoon yéen a kaay gii di libération daan nay wax ne am na benn agent buy liggéeyee ca ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères di Badara Samba daan nay wax ne karambo ca lijjantil na ko passeport diplomatique mu fay ko trois millions cinq cent daan nay wax tamit ne Fabien Feliu moom tim génne woon na lu toll ci trois millions ngir nag bëgg ab a kaay kaay gi am na benn doomu réew Nigéria ne maanaam ci a violé ci la bëggoon a siif benn xale bu boo xam ne fukki at ak ñett la am a kaay gi xëy na boppam Boy Niang te journal bi di sunu làmb nee juróomi sorte la Boy Niang def bi nee na bu ñu waxantee dëgg Boy Niang ci boppam tafaati dafa diis ci moom moom Boy Niang mburum Pikine mi démb ba muy ñibbi nee nañu loxo bi am na ñaari baaraam yoo xam ne daf cee damm